jëf mbokk internet Allô Sénégal yéen ko doon laaj internet yi ñoo ñu doon wax ni dañoo soxla aada soxla cosaan waaye soxla xarfa xuufa moo tax ñu demaat ci digg àll bi doxaat ay kilomètres xuusaat ci ndox mi dugg ci àll bi jànkonteeg lu ne ngir seet ci suñu maam bi muy Serigne Diop réew mi nag wax dëgg yàlla dootul leen ko présenté bu dee gàllaaju cosaan dëgg-dëgg xarfa xuufa fii la fekk baax yéen koy gis. ci àll bi yéen a koy gis ci digg garab yi ci digg guy ci digg gàncax yi ndax nawet ñëw na te suñu maam ji dafay jëfandikoo gàncax ngir liggéey lu baree baree bari xarum tabaski bari na njariñ ndeke gannaaw ndawal li nga xamante mën nañ koo jëfandikoo suñu maam ji der bi niñ ko feesee lépp daf koy jël jëriñaat ko ci biir doomu aadama yi ndax lépp nee na njariñ la tey dinañ waxtaan ak moom ci loolu lépp nañ waxtaan ak moom sax ci sur cosaan gi nga xamante ni sëru aada gi nga xamante ni dinañ faral di gis séeréer yi di ko di ko di ko di ko di ko di ko boole ci seeni xarfa xuufa mm-hmm. ci làmb ci mbër yeeg lu ne tey dëggi dëggi gàllaat la ñuy waxtaanee mm-hmm. waaye dinañ waxtaanee actualité ndax suñu maam ji lu yàggul dara dañ fay ñëwoon diis ko ci problème mu réew mi mm-hmm. ci wàllum Ousmane Sonko mu amoon ay révélation yu ci defoon toll nañ fa ndax président Macky Sall nee na du déposer troisième mandat alhamdulilah ndax réew mi xëy na dina ko génne ci benn tension politique suñu maam dina ci wax ndax gis nañ ni ku ci mel ni ñoom Pape Diouf ak ñeneen ñi ngi jug di mel ni kuy féliciter président de la république ndax wareefam ndax seen wareef la. Mm-hmm. duñ fàtte ki nga xamante ni moom mooy Ousmane Sonko heure bu ne war na nañoo mën a xalaat ni arrestation war naa mën a dal ci kawam loolu lépp dinañ ci waxtaan ak moom ba ci Guy Marius Sagna mi nga xamante ni génn na mm-hmm. nee na Ousmane Sonko bu mu ñu fontoo dafa dafa yebaate li ko ma li ko déposé am jaral. moom la ñu jaral ngir ñu ngir xalifa sàll mën a bokk loolu lépp dinañ ci waxtaan ak suñu maam ji waaye balaa boobu dañ koy bàyyi moom seriñ Diop mi nga xamante ni moom la ñu yaakaar ci gàllaaj ci xarfa xuufa du samay wax réew mee ko wax hmm. mu nuy mbokki internet yi nga xam ne ñoo koy seetaan maam booy bismillah waaleykum salaam wa rahmatullah maa ngi fay sa nuyoo te hmm. nuyoo àdduna yëpp di wax ne ñoo ngi sant yàlla bu baax hmm. ci bu ñu yàlla mayee wér. Hmm. ngeen ñëw fi fekk ñu fi ñëwaat fi tey fekk ñu fi. Hmm. ndax nit yàgg naa dem ci barab fekk fa nit. waaw dellu fa fekk ko fa. dëgg loolu yëpp dogal sunu borom la. Hmm. su neexoon suñu borom bu ngeen ñëw doon ñu fi fekk wala du ngeen fi ñëwaat. waaw kon su fekkee ne bëgg jëriñ adduna bi tax. yéen itam ngeen dagg seen i xoolu leen naaj na. xool leen ko leen ci jaar ci yoon wi. xool leen dajal ba tax ngeen ne da ngeen di ñëw fii. ngir bégal adduna bi. waaw ci lan ci xam-xam ngeen fi jëlee. ñu mhm. ngi leen di delloo njukkal yéen itam. Mhm. waaye nag di nuyu ñëpp di beral nuyoo sama jarbaat yi ci Amérique. su ma mhm. waxee ñoom xam nañ seen bopp. ndeysaan sama jarbaat yi ci Norvège xam nañ seen bopp. Belgique xam nañ seen bopp. ña ca Italie di samay jarbaat xam nañ seen bopp am na ñoo xam ne sax tey papa lañ ma def maay seen papa. duñ dugg lu ma yëgul. te loolu yëpp buntab ñaan ci lañ xamante. ñu ciy sant yàlla ndax lépp lu doon dëgg rek day waaw surtout nag bu baaxee teg ca. macha allah mu ngi leen fay di leen wax ne Lamine bisimilah. Mhm. Euh, danañ góor ci liñ mën a wane. Mhm. wax leen ko. waaw ci kàttanu suñu borom incha allahu taala. tey njariñ dina génn ndax suñu maam ji buñ ko jàkkaarloo moom lu xel suñu xel dem ci xam-xam dañ ko koy laaj ndax xam nañ ni toog na ci jamono ji dañ fi faral di fekk sërum séeréer. Mhm. séeréer yi gis nañ benn sër bu ñuy faral di yor lu baree bari ci wàllum gàllaaj te dañ ko fi fekk ci kër gi lu baree baree bari papa moo tax ma ni sër bi mystique la njariñ la ndono la aada la lu mu doon papa waaw sër bi xam nga dafa yéeme waaw ndax li njëkkee yéeme gi mooy machine defaru ko loxo moo koy ràbb ba jeex te lii may wax képp ku xam maanaam benn bés sax am na ko tubaab Euh, ku dégg tubaab ku may xam mu ne ma lii la lañ wax ñu ko defar ne mooy tiisara mu ne ñoom ñoo koy defar. Mm-hmm. ma waaw ndax boo ñëwee da ngay toog gis leen. Ah. am na ay bant ñu def nii di jël di xëcc ba sër bi ràbb. Ah. waaye nag ay sor lay doon ci misaal nii. Mm-hmm. sër bi nii ngay gis. Ah. ay sor lay doon. sor. waaw mooy lii maanaam boo seetloo nii lañ ko def yow yaa koy boole. waaw boo paree yow yaay boole sër lii lii mooy lii mooy sor. Ah. par ni lay mel ni lay mel boo paree nag nga boole leen yow. waaw ak sa machine bu la neexee. dëgg la waaye sor yi moom. Ah. loxoo koy defar. Mhm. boo seetloo ci Tëngéej am na quartier bu ñuy wax sor. dañu wax ne kër yi noonu lañ meloon. Mhm. moo tax ñu tuddee ko sor. baatu sor bi loolu ko andi waaye nag mhm. naa dikk ci digg digg dëgg sër bi. waaw bi boo selloo li ci ëpp suñ mbokki séeréer wala joolaay. waaw daanaka ñoom ñoo koy gën di ittewoo ndax dafa doon loo xam ne gàllaaj bu ñuul la gën a féetewoo pour liggéey. ah gàllaaj ñuul. waaw ndax bu ñuy liggéey ñun li gàllaaj bu ñuul ñaari boo seetloo moom la ñuy sol wala moom la ñuy lal sër bi nag daa mbir yu ci nekk. waaw doo da nga dem ci marché bi rek jënd sër. am na ci sër boo xam ne da fekk ñu ci néew. Hmm? néew làkkat moo xam séeréer wala joolaa nga fexe am sër am ci sër boo xam ne. da ngay fekk ñu joxoon ko seet waaw mu muuroo ko. Mm-hmm. suñ paree nga fexe ba am sër ma. loolu moo waral nag nga gis léeg-léeg ñu bëri ci gàllaaj yi ñuul mhm. bu mel noonu ba ci li ngay gis ni léeg-léeg làmb mbër di ko faral di def mbër yi nga xam ne buñ ci jàppee nit waaw ba mënta jog fa mu toog waaw soo ñëwee nga gis mu def ni ñu solal ko ko mu def ni benn yoon jéggi jàll solaat jéggi jàll ba muy juróom-ñaari yoon lépp lu nekkoon ci moom ci suuf ci takk mhm. day tekkee ko waaye nag du servir ngay jël loolu moom am na lu muy àndal ci garab yi cosaan la. waaw euh, tey bu nit ne salaamaaleykum ñëw ñu xam ne kii liggéey jàpp na ko ba mënta yëngatu. waaw ba la ñu def dara ak moom loolu la ñuy njëkkee pour maanaam. dindi li nekk ci moom effacer lépp lu nekk ci jëmmam. ci jëf ju bon walla ci takk wala ci fas. loolu sër bi da koy liggéey sër bi daal maanaam kéemtaanam. Mhm. damay wax loolu yaatu la ba ci ndomb bi ñu def pour fas mbooloo. waaw ci sax njaboot boo tekkee leen sax sër bi lañ koy def. waaw da wax léegi ci njaboot. Mhm. am na sa njaboot yooyu nuyu ci bitim réew. Mm. waaye am na ci ñoo xamante ni li la booleeg ñoom. Mm. mooy seen njaboot dem na ba tëleen. Mm. ndax bitim réew seen yarin bokkul ak fii. bëri na ñoo xamante ni seen njaboot tëwoon na leen. waaye gannaaw yàlla nga dem ba récupérer leen defaraat lien yi. ci lu yéeme maam. waaw xam nga jaamu yàlla gu ëpp defar jaam. waaw damay wax ne daanaka bëriwul. Mm-hmm. ndax jàmm bi yàlla moo ko fonk teg ko ci kaw lépp lu mu bind kon lépp lu ci nit pour mbiram jag ma xam ci jub ci baax ci leneen. Mm-hmm. da wax ne suñu borom moo la cay fayal moom donte moom kan koy liggéeyal fayu la. te dafa bari léegi sax ci abbu jikko surtout bitim réew. da nga yóbbu sa doom defal ko ba mu baax. waaw jàngal ko. Mm-hmm. liggéeyloo ko ba mu miin yoonu jub waaye àndandoor tax day dem. soppeeku mu mel beneen jikko boo xam ne doo ko xam ci moom. loolu nag suñu borom daf cee dimbale ñu am ñu ci jëflanteel ba tey mhm. jiima ak yow yàlla may ñu ci ñoom loo xam ne dama xam ne duñ def ci seen kër yi sax loo xam ne woo ñu laaj ñu lu suñ xalaat yàlla dimbale nañu ci loolu ndax mhm. eh, dama xam ne daal nit nañ góorgóorlu ndax nit mënu am lu ëpp njabootam lépp loo xam ne si nii am nga ko sa njaboota ko gën kon bul nangu di xaar ba sa njaboot ne xafañ mhm. wala mu dugg ci dara nga doog di jóg di naan olof nee na xoddee ko ci bala ngaa lakkale bul seet ne kii moo jubadi mu lay ñaanal bàyyi ki des. kon jëlaal leen ñëpp nga ñaanal leen. macha allah toujours damay wax ne sonn leen ci njaboot gi. bu leen gént yeeg ceeb yeeg njëkk yeeg nangam gën seen njaboot yi. Mm-hmm. loolu moom wax naa ko waxati ko. waxati ko mm-hmm. te mooy sa komba boobu ba léegi ndeysaan ndax ku gis ni muy daj ci njabootu jàmbur. Mm-hmm. nga xamante ni wax dëgg yàlla dajale ay nit dajale njaboot ñor na ko. maam dafa am loo xamante ni dañ ko fee fekkoon. fekkaat ko fi. muy gàllaaj gooy benn garab mel ni danga yor benn garab benn sémmiñ goo xamante ni. Mhm. da koy daaj ci garab. Mhm. ci ci wàllum gàllaaj mystique la nag. Mhm. waaw loolu léeg-léeg ñu dalay wane sama doom dafa am ñu ñoo xam ne daal ay jëfkat yu bon lañ. Hmm. bëgg nga fexe ñu bàyyi leen. waaw ñu bàyyi leen. waaw soo liggéeyee yónnee ko. Hmm. am na loolu fii nga koy bi nga koy koy defee noonu. waaw ngeen koy fekkee ko. waaw ndax dafa am noo si léegi dañuy da nga koy waxtaanee. ñu foog waxtaan rek la ci yóbbu fekk ne mooy sa liggéey yow. Mm-hmm. loolu moo waral ñu koy wane waaye sax du yoon ñu koy wane. waaye soo gisee ñu koy wane pour dëggalal nit ñi ne ñun lépp loo xam ne toog nañ fi di ko wax. Mm-hmm. suñu borom dimbaleen nañu ci ñu ngi koy def. est ce que am nañu ndigalu ngir wane image yooyu. waaw yëpp incha allah may naa leen digal. est ce que waaw may naa leen mm-hmm. dama bëgg maanaam olof nee na euh, am na loo xam ne si tungal teew ngeen ci ëkk. waaw nit ki fekkee ne da ngay wax am ku naan est ce que loolu amati ndax man de gisatuma mhm. bu ca tegee bëtam. waaw dootu ko weddi. waaw su fekkee ne liggéey nga loo pare ba dóor ko ci garab. Mhm. ni muy xaree garab bi. waaw bu xasee takkali ko nii nga ko. mbind mi si ca kii bi day far. Mhm. ñaari mbind fay ñu ngi laalante mu ngi mel ni yow mu jëloon tey ci misaal ni ma la ko benn xoy xuncooru genn fas. teg ko ci safara. ni muy bankoo. waaw du mën a ànd moom noonu lay demee. waaye bu fekkee ne def ko pare. bu doon mbon gi alal door a ko yóbbee da nga gis mu commencé dootul nangoo dem day toog sa kër. Mm-hmm. maanaam loolu dafa doon loo xam ne. moom lii ñaare ñooy faral di ànd. da nga koy liggéey ci njaboot lonkalante ko nii mu dëgër boo defee nii. ndax bii dañ laa fekk nga liggéey maam booy. waaw lu bees lu ñuy doog a gis ñun. waaw <laughs> waaye ñu miin sama émission yi. waaw eh, di waxtaan. waaw yàlla def na ñoom am nañu ko mos a gis waaye bëriwut. waaw ndax léeg-léeg day dem ci diggante boo xam ne. am na ñoo xam ne ñu bees la ñu doon ñoo xam ne mosuñu laa seetaan. waaw kon day baax léeg-léeg bul jàpp ne ñuy wane woon naa ko rek. jaru ko naa naa naa naa ko bay waaye loolu bu doon toon loolu tey da nga xam ne mën naa am lu ñu fekk. waaye lii dafa am ku ma ko fàttali ne ma sëñ bi ma naa mu ne ma am na loo ma defaloon lu am solo ci lonku yi. Mhm. ma ne ko naa mu wax ma ko. ma ne ko man de lu fàtte woon naa ko sama fa ma ko lonkoon fa laa ko bàyyi. ndeysaan su ma liggéeyee ba pare lonkaat teg fa su ma liggéeyee ba pare lonkaat teg fa. ma fàttali ko mhm. mhm. loo xam ne gàllaaj la. waaw ah. su ma sañoon lu ma nit di njëkk a sant si gàllaaj. waaw mooy defaral ma sama yaram ba mu set ba pare doog maa aar. allahu akbar ci ànd ak dogalam yàlla. nga dindi li ne ci moom ba. ba pare. waaw ko ay kaaraange. Mhm. mu ànd ak dogalam yàlla mhm. bu ko defee nga taxaw ba pare looy dox doog koo dox xam nga yaram bu sete Lamine doo ñàkk wërsëg Lamine waaw yaram bu setee nit ki du ñàkk wërsëg ndax bi ngay wàcc dara topp la waaw dara néew ci yow dara euh, bët topp la Lamine topp la dara topp la waaw dañu wax ne maanaam dara jomb la woon ci nga amee loolu yëpp waaye boo ba leneen bokku ci nag mhm. mooy waral tey problème yi ñëw sama alal ji dem na sàcc nañ ma agressé nañ ma jam nañ ma nangam loolu yëpp yaram bu ci lu ko waaye boo raxasee sa yaram ba mu set. Mhm. ut kaara nga toog. waaw wallahi al daanaka damay xam ne bu la neexee sax bu macha allah mm. léegi dañ ko ñaan ngir mën a jàllale image yi waral loolu mooy lu yàggul dara bañ fi ñëwee. Mm. am na image yu yéeme yoo xamante ni bañ ko fi jëlee. Mm. dañoo dem ba yàgg rek mu mënuñu bu sañoon image yooyu du jàll ndax am na. ñoo xamante ni seen ngëm-ngëm tollul fenn fi. Mm-hmm. te image yooyu am na lu muy def ci nit. Mm-hmm. moo tax bi ñu gisee yii nii rek ñu ñaan ko. Mm-hmm. ndigal ci kanam internet yi ngir mën a jàllale image yooyu. feneen fi ñuy ñëw mooy lu xamante ni sénégalais yi ci yow dong lañ koy gisee. mooy ndomb goo xamante ni deru golo lañ ko defaree. waaw <laughs> deru golo dinañ gis koo xamante da ciy cof def ci ndomb waaye ndomba loo xamante ni deru golo la. fii lañ koy gisee maam booy. yàlla dafa def ne bërki démb fi ñu toog ci benn uh, ndaje. waaw di waxtaan ci benn xew-xew am na koo xam ne dafa gis ku yor benn ndombo. Mm-hmm. mu ne waa ah, xanaa lii ndombo sëñ Jóobi la mu ne waa ah, ko de waaye moo ko jox ki ma ko jox. c'est vrai. naa mu ne waaw ah, mu ko waa lii de moom yëfam la. waaw ma ree ko waa sama yëf la de. ak képp koo xam ne jox naa la ci ndigal. ndax mbirit boo ko téyee. Mm-hmm. ba joxe ko du yow rek yaa ko moomatee. dëgg la yaa sonn joxe dépense boo ko keneen mu ñëw togg mu yàq. Mhm. nga woo njaboot ñeneen ñëw bokk rek kon yow moo ma togg. dëgg la waaye ndomba deru golo. Mhm. mooy gala gi nga xam ne damay wax ne ci ji jamono. waaw li muy liggéey dafa tollu jamono ji ndax golo deru golo bi ndombaam mooy yuutu jot. yuutu jot yuutu jot la ndax ñu ko xam sax loolu lañ ko tuddee yuutu jot maanaam lépp looy yuutu du ko lijjanti muy jafe. Mhm. bu la yàlla dimbalee de dama wax ne ndomba gi du ràpp ci yow te jotu ci. looy xëccoo yaa cay jot. jot ci boppam. waaw foofu sax laay duggee ci Lamine di la wax ne. waaw. xëccookati nguur yi. waaw bëri na ci ñoo xam ne. waaw dama wax ne xam nañ ci dara. waaw ndax nit xeeboon na boppam ci palaasu maire. Mm-hmm. yor ndomb gi mu ànd ak dogal yàlla. mu dem moom doon député. ni nekkoon député. Mm-hmm. yor ndomb gi mu ànd ak dogal yàlla mu dem ba doon ministre. loolu nag dañ ciy sant yàlla ndax loolu yëpp nag ndomb gi dogalu ko sunu borom moo ko dogal jaarale ko ci yéen ndomb gi ndax yàlla tamit wàcc li may wax ak dara mhm. ak kaftaan mhm. taxaw naa nanga ma ko lépp lu muy def da am ci lu kon li mu jaarale yëf yi mun mhm. nag nu yëf sunu borom moo def loolu may ci la la ko jaarale moo tax ñu ci sant yàlla bu baax ci ndomb gi macha allah ba nga xam ne si nii daal képp ku yàlla dimbale ba man ci am ah damay xam ne ku nga ko manee ku amut dama cay teg nag mooy yombut waaw loolu pour mu leer. ndax nit ñi tamit. waaw foofu dinaa fi taxaw tuuti Lamine. waaw ñaan dafa métti. nit ñi ñàlloo lii nga gis ni ci enveloppe. waaw kii paquet la sa bala maa pare dama ko defar lépp. ndax bëgguma jëflante nit. Mhm. moo gis xaalisam jox ma. Mhm. ma ne ko tey suba ngoon gannaaw suba tey suba ngoon gannaaw suba ba mujj mer gedd. Eh, bëgguma loolu. la ma bëgg mooy su ma waxee ak nit yi ba pare. Mhm. lañ dëggaale ma ne ca kon képp koo xam ne sunu borom def na nga bëgg ñu liggéeyal la. waaw waaye waaye bu fekkee yoragoo juróomi dërëm ñaan hmm. mënta ànd ak ñàkk yoruma dara loolu mënta nekk bàyyil ba dajale dara donte matut nga xam ne su ma waxee sëñ Diop kat su ma waxoon million lu mu gàtt gàtt yoon naa cent sax ma ko jox su ma waxee cent mille lu mu gàtt gàtt yoon naa junni ma teg ci loxoom hmm. loolu xamees na ko waaye sëñ Diop war a liggéey ci journée bi nga woo ko mu xoolal lim lay liggéeyal fukki minute pare nga waat ko nga wax fukki minute su ma ci defee juróomi minute du ma liggéeyal kenn su boobaa da ngay jàpp ne da ngaa jafe fekk déedéet jafewuma liggéey bi moom laa gën a priorité dëgg la ndax nit ku ma jox sa alal. macha allah ma wax ki ma joxul alal danaa pare si yow. macha allah jërëjëf Mame Boye hmm. xam-xam bi ba léegi ci la ñuy continuer ndax njariñ li buñ ciy xuus mën naa ni ñu bëri dinañ xam ni dëgg-dëgg xam-xam am na. Hmm. ci socc la ñuy dikk. Hmm. njëkkoon nañ koo génn ci émission bu njëkk bi. bii passé dañ koo fàtte woon. ñu bari doon ko laajaat ci socc bi sax. waaw socc bi dafa nekk loo xam ne dama ko liggéey si ñaari anam. waaw. gis nga Lamine bant yi ngay gis. waaw. bëreetul léegi de. <coughs> bant yi nii. da nga ñëw ci ni fekk fa der. ñu lal ko. waaw du deru ngénte du dërëb dëj deru tabaski la. deru xaru tabaski. dafa barkeel barkeel koo xam ne. Mhm. dana tax ma dugg ci tuuti ndax ci gannaaw. waaw bëggoon naa cee dafa waxtaan laay ci biir nit ñi. Mhm. waaye so sonaloon ma. Mhm. moo waaye dama ci bëggoon laay biir ni ñi loo xam ne mhm. am na koo xam ne yónnee na ma ci xaalis boo xam ne xawma ko sax damaa toog rek mu woo ma ne yaa digle woon ne waaw ku def lii sa soxna buy am doom muy métti wala muy jafe wala ñu ko opéré mhm. yàlla mën na koo dimbali ñetti yoon lañ ko opéré bii yoon ma ne woon naa def li sëñ Diop digle waaw mu ngi doog am doom normal billaahi wala taala socc bii mhm. bant bi ngay gis mooy bant yi ñuy dëndee deru mag ñi xam nañ dënd mooy bu ñu feesee ba pare nga jël der bëgg koo defar. waaw da nga koy tàll jël xorom ak ko kooyal ko diw ko ci ko jël cat la daaj xëcc ba mu tàndal. Mhm. jël beneen bant daaj xëcc ba mu tàndal. bant yi ko seqoon jéngoon ko nag ba mu tàndal ba wow. waaw moom deru mooy mooy bant yi. nga socc bi. waaw su la yàlla dimbalee nga ñu liggéeyal ko pare dañ koy ëw day am fi ñetti boo xam ne soo paree da nga koy ko fu la neex. Mhm. nga natt ko nii teg nii sa loxo def nii. waaw baaraam bi ci gën a gudd. waaw moom ngay natt ni mu toll ci yow noonu koy daggee. Mhm. soo xëyee. waaw waxuma nga gàddu ko di wër ak moom de. defal nii rek. ngarañ ci tuuti daal koy buusu fii def nii. wallahi wa rabbul kaab bu fekkee ne yàlla dimbale na la. Mhm. mu ànd dogalab yàlla. waaw ci bés bi. bi ko defee ba bés bi dellu si. waaw gisuma ku mën a wax ci sa mbir ko yàq. bu fekkee ne mbiru cat la. Mhm. la ci jublu woon kese. waaw lépp la wax na ci xaar boppam. bu fekkee da ngaa miin di jëflante ay nit te saa boo jëflante ñoom la cay mujj rek mooy ay wor nga di ko jëfandikoo mhm. lu la nii di wax na ko man maanaam socc bi ci kéemtaan waaw maanaam léeg-léeg du mu ci bëgg di wax ndax da ngay dem ba àgg foo xam ne sax ni ñi amul ñu nangu loolu te suñu borom may na lu raw loolu wallaay waaye ñi ko laa wax waaw waaw am na suñoo xam dañ koy jeexal sax ne ñoom duñ bàyyi dañuy jëndaat te dama naa ne bu ko jeexal sax jarul waaye dañ naan dañuy utaat beneen mhm. moom itam yombut mhm. dafa am gàllaaj xam ne mënta yomb ndax liggéey waa jafe ndax gaal yi da ko war a liggéeyal nit te bala nga liggéey dañuy wax ne war ngaa saraxe nangam def ko doo ko liggéey wala war ngaa rey nangam jël ci la loolu noonu boole ko lii doo ko liggéey mhm. lamin foofu naa fi taxaw tuuti di wax ne nit ñi mhm. kenn ku ne sa xam-xam ok waaye ne bul def nangam waaw bul rey bul nangam mhm. gàtt xam-xam koy wax de gàtt xam-xam rey waaw man de ne nit mën nañ ñaanal nit ba pare di ko ay rey ma xam ne tabaski. waaw tudd. waaw wallaay sarax rek kon bu fekkee ne yow da ngaa jàpp ne yow lii ngay def. maanaam wuroo ko def. waaw ndax dafa daganul. kon wurutoo tabaski wurutoo rey xarum ngeen di man da wax ne nit bu amee problème. la gën a gaaw ci sama ñaanam moom. mooy ut xar moo xam ne mën na tuddu teg ko rendi ko def ko ay saam lii ma togg lii ma saraxe ñaan yàlla suñu borom ñooy ñëw xam nga xale yi ñoo lekk ko sax wala ñoo pare. seen ñaan yàlla yàlla mën naa tax sax nangul ma la ma bëgg waaw waaw tabaski boobu noonu ngay wax ci laa dellu siwaat ci tabaski boobu ndax waaw ndax li tax ma ci dellu siwaat mooy danga fay mm. fekk lii waaw mu jaaxal ma loolu ay nopp ay noppi xar noppi xar yi la fekk fi làmmiñ yi làmmiñu xar waaw ndax xam nga bëri na ko xam da ngay dégg maa ne cat cat cat nga dégg ko ne sangoo naa cat ba sonn mm-hmm. wala nangam te commencé wala lay wax na dëgg waaye dañoo dajegut ak lii damay wax ne lim gën a mën laa wax. Mhm. dindi cata ci gën a yomb. làmmiñu xaru tabaski. làmmiñu xaru tabaski. waaw lim gën a mën. waaw dindi cat moo ci gën a yomb. lamin kii lii ñett yi nga gis nii mën naa ko liggéey fii ba déwén moo ko nangoo cof lu bëri cot cof laa ciy def cof. nopp bii. waaw da ngay nekk nit. te du la may nopp du la déglu. waaw du la déglu du la lijjanti. Mhm. loo wax sa wax ser la koy def. waaw waaw wala nga nekk ci kër war fa am cër ka fa nekk doon benn nopp. nga xam ne si lu kenn wax rek loolu lay jël bu ñu ko nee da ngaa bon sax wala yaa tuur ceeb bi mhm. wala yaa jaay ceeb bi sax bu ñëwee dal sa kaw mhm. gis nga li am na lu si liggéeyal kilifa gu nga nekkal waaw doon benn nopp waaw su doon benn nopp ci yow la koy doon maanaam yow rek lay may nopp daal ah, laa ilaha illallah <laughs> loolu loolu leer la te ci noppi xarit tabaski nga koy liggéey lépp ci noppi tabaski dama ne waaw dafa naaf waxtaan boo xam ne waxtaan bi yëpp ban jeex waaw wallahi ci xarsuma si laa ko def ndax li ma ci yàlla dénk ci xam-xam. waaw ci li ma mën a wax. waaw wallahi xaju ci benn émission. Oh. dama koy cof. waaye Lamine euh, yàlla bu dimbalee nit ñi. Mm-hmm. yàlla def. macha allah may la xam-xamu mbir moo xam ne day jariñe bu ko nit ki wax ci télé wala ci rajo ba tax nga soofantal ko ndax kii ma yónnee woon li ma lay wax nii tey. Mm-hmm. ngir soxnaam su ko neexoon mu bañ déglu. ngir ne nangam ndax lu ma koy dégg ba taxoon ma gedd na dootuma sax wax ci internet mhm. sëriñu internet benn waaye nag dama cee dimbali ndax nee na man de man internet dama koy gërëm mhm. bu jox sëriñu internet yi man de man maay taalibeem ndeysaan ndax lu ma am ci ñaan moo ma ko may oh. ndax moo tax ma xam la moo tax yàlla barkel suñu diggante ndeysaan loolu nag ah, moo tax it boo dégloo ñii bañ merloo la nga déglu ñu ñu dégloo la macha allah yàlla yàlla dimbale mi ngi noonu mbokki internet yi Serigne Diop mm. lañ koy wax mm. di sëriñ boo xamante ni aada cosaan lay dekkil waaye nag dëggi-dëggi xar fa xuuf sori na nag fi mu dëkk dëgg la waaye bu la ko jaralee ba nga taal sa oto wala nga yéeg oto yéeg wàcc dox dikk ba ci digg àll bi di nga xam ni suñu borom may na ko ndax doo fi wéet te di nga fi fekk kilifa gune borom ndombal tànk gune du ma ni du ma ni ñëw na fi dama naan daje naa fekk moom mm. koo xalaatul woon ni di nga ko gis ci réew mi boo doxeek moom di nga dajeek moom ci kër gi nga xamante ni fi la Serigne Diop di recevoir ay kilifa gune mm. du fi recevoir ay ku ne nag waaye kilifa gune dugg na fi kilifa gune bi mu fi génn njàqare la waaye nag biñ toogee ak diir xam na ni wax dëgg yàlla mm. sëriñ bi liggéeyal na ko te alhamdulilah yi fi maam yi bàyyi woon mi ngi fi ba léegi ci la ñuy jàllee maam booy nga may ñu ko ñu dugg ci actualité mm. njëkkee ko ci Macky mi nga xamante ni nee na déposé troisième sëñ bi lan ngay wax ci loolee. waaw loolu li ma ci wax mooy damay faral di wax la mi ne la. waaw su la yàlla dee. Mhm. bul siiwal. waaw toog nañ ñu waxtaan ma ne la. Mhm. nit ñi fi ne di wax rek waaye mag troisième mandat sax du ko def. waaw waaw. waaye nag man bëgguma di wax. te bi nga koy mujjee wax it yàggul. te li tax ma wax loolu mooy. waaw. su fekkee da am sa secret wax ma ko. waaw suba nga dégg ko ci. daam. waaw am waxal ma ko su ma dégg ko hmm. ci ñoxor. wallaay da nga xëy am secret boo xam ne boo ma ko nar wax doo ko wax. déedéet waaw li mënta ñàkk rek may wax. waaw siiwal mbir it mbir mu la yàlla dénk noonu la moo tax ñu bëri dañ koy nangu di siiwal. Ah, ok waaye la man li ma gis yàlla wan ma ko. mooy nit ñi fi nekk yi wax rek waaye dem troisième mandat am na koo xam ne. bu ñu yàggut bu sax ñeenti fan na ne ma saa bu ñu waxee nga wax nangam te déggoo ko keroog mu ñun ñëpp ñu naan waa koñ Macky troisième mandat nag da ngeen kat nii ma ne ko dépendre ma ci loolu. moo tax bi ma waxee tey moomu njëkk a woo. Mhm. ne ma lan moo lay waxal ma ne ko ki lay waxal. waaw jeex na. mooy sunu borom moo ñuy dee ni ñuy wax. wallaahi waaye nag doo nag lu ñu la dee. nga wax nga ko. maa ngi lay seede dafa am ku ma àndal. Mhm. ma ne ko man de biig yàlla wan ma mbir ci sama oto bi. Mhm. fi ma taxaw mu ne ma ne ko am koo xam daa ñëw rek fël sama lampe oto bi. mu ne waaw ko waaw ma li problème bi nag mooy mhm. sarax bi ma war a def moom laa fàtte xam nga li gën a garaw mooy waaw dawoo demo fenn fi ma gaare waaw oto bi ma newoon ci kan bi newoon sama kanam waaw damaa ñëw fekk oto bi xawma daa recul lañu wax balaa lamb ba lamb ba wekkee ko bi mu génne sëñ ma ne ko déedéet déet mu naa ma ne ko liir yow de ma ne ko laajal kii lan laa ko bi ñëw mhm. billaahi wallaahi wa taala ma ne ko lan laa ko mu ne yow kii sëñ bi ko sarax ma ne ko déedéet ni dëgg la. la su ma fa loolu moo waral ñuy saraxe. dëgg la ndax yàlla day wan sarax nga saraxe pour mu fomm. pour wax la ne maanaam nit ki dawul lu la yàlla wan rek da ko war a biral. noonu ah, déedéet nit mbóot wax. mbóot bu génnee ci ne bi di dox. Mhm. bu jëlee daal dóor ngay wax. kon mbóot bu génnee. Mhm. ñaareel nga am ci loolu xarit. moo tax troisième mandat nag. waaw. am lu bëri loo xam ne si mën naa ne yàlla ko feeñal ci yëf am na koo xam ne cëram su Macky demoon du ko amati am na koo xam ne cëram. waaw su Macky demul du ko am. waaw am na koo xam ne bu sañoon tey. waaw Macky du mos a loolu. waaw am na koo xam bu sañoon tey. waaw Macky day bàyyi bu yàgg sax. dëgg nag fii ñu toll tey. ci course lañ toll. course bi mooy lan Sénégal gu xaw a doy waar ngay gis na ci kanam tuuti. ci kanam tuuti. te nañ bind du may wax ci kii waaye damay wax ne. waaw ci kanam tuuti gis Sénégal gu doy waar ci xëccoo. Mhm. ci xiiroo. Mhm. ci ŋaayoo. ci fitna ngir pal. élection jàmm la de. waaye nag dana jur coono ci nit ñi. maa ne seede ci alxuraan. jàmm la moom mi ko def. waaw waaye nag ci kanam li ma la da gis da gis ñoo xam ne xalaatoo woon dañ wanante gannaaw wanante gannaaw bay dóorante sax ay yéen. ay te maa da nga gis ne ñoo àndoon. da nga toogaat fi mu xàlloo. mais lu yàggul dara gis nañ ñi nga xamante ni noonu la mi Dias meloon ak ñoom Sonko ñi ni mel. dafa mel ni dialogue politique bi leen féewale. waaw parce que nit ki nit ki gis nga ñaar. waaw dëgg ko lalul alal. waaw suñu ngeen si ànd naxante danañ ci am. waaw waaw su ko su ngeen ay nit ànd. waaw naxante am. nit yàlla rek lay ànd ak nit. Mhm. te duñu rëccu. su ngeen ànd soo àndee ci yàlla. waaw dañuy fokk mun leen a continuer ba ilaa ajali mhm. ci jàmm mhm. ndax lu tax mhm. mooy fokk nga wax dëgg te koo wax dëgg bu yàggee mu mer dëgg la moo tax ay ni bu ñu àndee ci yàlla tax waaw te waxante wuñ dëgg waaw am na ko nax moroomam am na koy nax moroomam ay politiciens bu ñu àndee waxante dëgg waaw duñu ànd foog ñu tàggu foog ñu jeyante fii naxante fii waaye waxante dëgg rek ci politique waaw du doy amul fenn politiciens yu ànd waxante dëgg amul wallahi asim kenn ku ne la jariñ rek mhm. ngay wax sa morom ba génn ci la ko bëgg mais bu buñ desee ci Ousmane Sonko dafa mel ni mhm. nit ñi ba léegi seen xel dafa dalul ndax arrestation am la xalaat heure bu ne war nañ ko mën ni kirtim yóbbu ca nungu siin waaw xam nga Sonko waxoon naa la fii ne la waaw mbiram boo gisee bëgguma ci sori lu bari ndax mhm. ay sëriñam dañ koo liggéeyalut ay sëriñu Sonko liggéeyaluñu Sonko loolu dama koy wax di ko waxati sëriñu Sonko yi waaw waaye Sonko sëriñam buñ ko ah yow tam am na loo xam ne dama wax ne bu la ci cat jiitoo waaw xam nga mi nit waxoon ne cat de néew bi yàlla bu ko cat jiitoo ñu ne déet waay am néew ko cat di jiitoo mu ne mën naa àgg ba ci suuli nu bon mën nañoo juum sax wëlbati ko wala ñu juum juutal ko loolu li mën a cee nekk buñ ko liggéey loon waaw sëriñ Sonko yi buñ liggéey loon buñ liggéey la lañ war a liggéey ci ko parce que tamit xam nga nit dama xam ne buñ naxante su la yaakaaree nga xam ne tey soo ko suba bul génne dem Kaolack gi ngay waaj lu ko may jàmm doola dal mu fomm. waaw àgga yow foofu. waaw war na laa mën a jaral yow nga toog sa der bii nii ngir moom. dëgg la waaye du too rek yeewu rek na ko ba def nangam déedéet du noonu. ñaan dafa métti. waaw ki lay jox alalam ni muy sonne ci alalam pour jox la ko. Mm-hmm. waaye waxuloo ne am rek pour nga toog ne ma nangam. wax sa xalaat ëppoo ko xalaat. dunoo ko dox dala ko jox pour nga sonn ci biiram soo ci sonnee rek suñu borom mën na laa wuy si. Mm-hmm. léegi nag ah Mm-hmm. dëru mooy lan mooy toog ci liggéeyukaay. Mm-hmm. nekk ci liggéey liggéey ba suñu borom fekk si la ci nga bëgg. macha allah waaye da ngay cof rek ñëw rek ne ah déedéet. Mm-hmm. ñaan doon de. non de. ndeysaan suñu maam ji macha allah yàlla na yàlla fi bàyyi ba mu yàgg. ndax njariñ li mu yor wax dëgg yàlla réew mépp xet nañ ci. ba ci sax ku nekkul ci réew mi. ndax gis naa ni wala gëm naa ni te foog naa ni itam. bitim réew ñoo ko gën a xam mm. ndax ñim ca ñim fa jëflanteel ci résultat mm. xam nañ ni kii nga xamante ni moom la dalal tey di suñu maam ji di Serigne Diop mm. yemul ak kenn ci xam-xam yemul ak kenn ci gàllaaj waaye yemul ak kenn ci xar fa xuuf maam booy dañ lay bàyyi nga tàggu mbokki internet yi la xam ne ñoo la doon bàyyi xel fii ci Allô Sénégal waaw li may tàggoo rek mooy di sant ko gërëm ñi nga xam ne yàlla leen fi bàyyi seen temps di la la seetaan mm-hmm. donte nag ñoom ngay jariñ wala waxtu kenn dégluwu la. Mm-hmm. bu yàggee nga noppi. ndeysaan wala bu yàggee dootoo génn. Mm-hmm. kon maa ngi leen di gërëm di leen sant ci seen taxawaay bu te di dellu di wax ne. Mm-hmm. ñaari gàllaaj yi lu nit di ut. waaw maa ci dellu sax na ko na ko na fonk muy gàllaaj gi njëkk. raxas sa yaram ak kaaraange ak kaaraange soo paree nag bu la yàlla dimbalee nga mën a am doom ba golo gi. ah ñetti gàllaaj yooyu daal doy na ci gàllaaj. la ca des nag. bëgg bëggu nit ki mooy njaboot gu ànd geeg. Mhm. soxna seeg. Mhm. jëkkër ji nangam mhm. te jigéen ñi dañoo sonn ci sëy te sëy yi dañ ko war a ñàkk. Lamine. waaw nañ ñàkk sëy yi am jëkkër. ngeen départ li may wax toujours sonn ba yàlla am fu mu leen yóbbu. mu xëy benn waay muy jógee fële. di ca dox ba jox ko keneen koo xam ne. xalaatuloo ko woon ñu xabtal ko. muy takk du ko tey wallahi la asim takk du ko tey te xam naa ci dara. ndeysaan loolu yëpp nag mhm. ñàkk sab sëy la da nga ba nga xam ne ku ci bëgg a dugg ah. dafay réer am na ñoo xam ne kumpale doon maanaam da mel ni ku mbuur malaan si jëkkër bu doo génn góor ñu ko gis mm. bul xaar bañ ko naxam téye mhm. nga doog a jóg nga doog a jóg day métti allah yàlla ñu yàlla dimbale amiin waay dimbale Sénégal amiin amiin li Macky def mhm. wax dëgg maa ngi gis adduna bi yëpp ko rafetlu ndax waxuñu ne ngir senegal waaye dafa dimbale adduna bi ci deru Sénégal ak fi ñu doon xool Sénégal daal wax dëgg Sénégal génn fa. alhamdulilah moom loolu ko yàlla may xolam mu mën ko ndax yombul de. yombul de mm. taxaw bi mu taxaw am sañ-sañam ne nangam ji ngeen ni séntu du ma ko def. waaw wallahi azim nit àndandooram tax na mu dugg ci lu mu bëgg a dugg. wala xolleen ba tax nga lànk du ma def nangam te du la jëg mm-hmm. kon su ko yàlla may loolu. ñu ngi yàlla jàmm te kii yori Sénégal ëllëg. macha allah yàlla ko yàlla waay mu doon koo xam ne mooy gën ci ñun. amiin gën ci Sénégal yi teg ci. alhamdulilah yàlla ñu yàlla dimbali ci loolu wa ma zalika alallahi bi aziz allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa mi ngi noonu mbokki internet allo Sénégal ñu ngi leen di jëfal di leen jox dig daje ëllëg seen beneen émission jërë ngeen jëf.